xam ne li ko sabab mooy euh, en 2012 bi ma nommé ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur euh, sama jeune frère yi ñu qui est le président des ASC était venu ñëw solliciter ma pour wax ma dañ ma bëgg a tuddee benn trophée ma nangu woon ko ak beaucoup de vraiment d'aisance ak beaucoup de satisfaction mais yàlla ci dogalam mu def bi ñu tànnee bis bi pour def ko Cheikh Mouhamadou Mansour làqu donc ñu reporté ko yàlla dogal ñu reporté ko une saison voire deux saisons ñoom nag ci seen jom ak ci seen xam seen warugar ñu sàkku pour ñëw indil ma moyen yooyu nga xam ni dama ko defoon ci boobu marrainage euh, ñu ni il faut ñu def remise symbolique pour wane déjà seen dëggu mais wane aussi que euh, dañuy bëgg continuer dans l'avenir pour waat yeneen relation yu gën a approprié donc loolu ma leen ci koy saluer di leen ci encourager parce ndaw loolu moo ko war euh, di wax aussi que ni euh, lii duñu wax sport man ni ma ko jàppee dafa doon euh, benn moyen boo xam ne nii ku ci sukkandiku war nga mën a indi rattaxal diggante yooyu nga xam ne dafa war ci jamono bi nga xam ne nii ku ne xam na ni jàmm dafa war a doon lu ñu war di sàkk ñun ñëpp te sport loolu moo ko njëkk a tax a jóg mooy jàmmalante euh, dajalante ci kaf ak ci ree bu demee sax ba xaw a ñagas sport bu ñu loo ko gis nu mu ñagas-ñagas day mujj ci ratax parce que li leen di tax a jóg moom moo ëpp doole ba tax na man dama jàpp ni ci li ñu war a gën a encourager ci sunu ay mbir la maa ngi ko doon wax rek ci suba nga xam ni dañu def benn session débat d'orientation budgétaire invité ci le chef de service du conseil euh, donc du service de déconcentré euh, du sport euh, qui basé à Tivaouane di ko wax naan ko sport dañ ci war a jàpp yàlla dogal mu coïncider ñoom ñu ñëw di def remise trophée may lu may accueillir vraiment kontaan ci Euh, di leen wax ni la non seulement def ngeen ko clôturer ngeen lool mais ubbi na beneen perspective parce que aujourd'hui ni ko président de la république defee au niveau de l'ONCAV mooy jàppale leen ci moyen ñu nit bu ñu mënul def li mu def mën nañoo def li ñu tollool mooy ma wan leen sama ubbite ak sama euh, disposition yi ma nekk pour jàppale leen pour ngeen mën a atteindre seen objectif bu ko jàmm lalee loolu lépp xaj na ci donc ngeen proposer ma ma doon marraine zone yéen a xam noo leen ko bëggee en tout cas je maa ngi ci seen wet fas yéene lan jàppale euh, fas yéene ànd ak yow euh, yéen fas yéene def li ma euh, sama ay compétences transférées sant parce que bu ñu fàtte ni on ODCAV c'est une organisation socio Euh, culturelle en tout cas sportive mais ki dépend du département de Tivaouane nga xam ne maa koy jiite donc loolu du ma def lu rafetlu jéego yooyu di ñaan yàlla yàlla na yàlla gën a rafetal ànd bi yéen it foo leen toll rek ngeen di promouvoir jàmm promouvoir ni sport du violence la non violence euh, di di di dox jàmm bu ko defee ñun di ngeen ñu jàppale ci suñu ay activité mu fes mhm. mais ñu nit ñu jàppale leen parce que moyens yooyu bu leen manqué fu mu fu ko mën a wuti dinañ ko wuti pour ngeen egg seen objectif di sant ñëpp ñi ñi ci jàpp ñëpp ba mu sotti maire yi fi ñëwoon nag mhm. organisation yi association yi ak ASC yi ak euh, bañ a fàtte tamit seen euh, chef de service bi nga xam ne moo yore affaire si woon monsieur Loum nga xam ni dafa jàpp ci liggéey bi wax dëgg yàlla du tey rek toujours mi ngi ñëw di def ay proposition yoo xam ne suñu ci saytoo dina eggale suñu liggéey di sant yéen journalistes yi duma ko bàyyi di wax bu ñu waxee nit ñi dégguñu c'est parce que yéen a ci jàpp ngeen yore métier bu noble ma leen di sant di leen wax neen man partenaire laa leen def soo leen manqué ci groupe bi dara du dox di leen gërëm di leen ñaanal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.